jàngatu président directeur général bu groupe E-Media Invest amaloon loole yëkkati woon ay coow tax Mamadou Ibra Kane yëkkati tànkam nemmeeku ci Serigne Moussa Mbacké Nawel ci njaareem laata mu yegsi ci Daaru Minam ci dëkk bu sell bile tax xalif général kullu murit dalal ko wane mbégteem jëmale ko ci moom naka noonu rafetu liggéeyu président directeur général bu groupe E-Media te doon baax te ko toll. lépp lu baax rek indi moom. puisque naa la nga li ñu wax nii nga wax. lu baax doo nga siy ñëw. alhamdulilah te indi man amaana bi ñuy ñëw. loolu am naa ci yaqin. man man man damaa jaar sant rek gërëm la. loolu rek loolu rek la. loolu yàlla rek laa ko seet. ñaari wax yëpp. benn la ñëpp ci ñun la jëm. waaw waaw waaw. dama naan rek la ne la. loolu rek la ne la amul amul benn benn bu ci nekk. waaw waaw waaw waaw ñoo ngi ñooy ci PDG bu group E-Media fëddaliwaat koloreem naka noonu pas-pasam ci yëkkati lépp lu jëm ci yoonu Mouride. gis ak Serigne Mountakha yàlla na fi yàgg te wér dafa dégg naa lépp waaye na sa xel dal du noonu noonu la ko wax man ngay liggéeyal loolu nag sëriñ Muntaxa ak nu mu toll bu waxee loolu ah loolu war naa dalal sa xel ndaxte jarul dellu si waat loolu lu mu wund rekk maanaam coow biñ fi yëkkati woon wax ji dañ koo wëlbati bëgg koo jëmale fu mu jëmul woon waaye yàlla ak suñu kilifa sëñ Muntaxa Bachiru Mbàkke ak dalam ak bëgg jàmmam ak laabiram ak nu mu yaatoo ak nu mu ubbe ubbee ko ngir senegal ngir yoon wi ñëpp gis nañu taxawaayam. sion solo gunge ko ci njiital Serigne Abo Touba Dalal président directeur général bu groupe E-Media Invest ginnaaw ba xalif général kullu murit rafetloo jéego yi léey